toftal na ñeenti simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen a ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi gannaaw bi ñu jéggaloo ci door gi bokkee ca ponk yi ci gën muy am ca diwaanu Sagna ñaari aadama ñàkk nañ ci seen bakkan fukk ak jëlee ci ay gaañu gaañu ñett ña sonn lool loolu na tax na député maire bu Malem Odar maire ba Futu moom Ali Ndaw la mu rek mooy li nga xam ne doo daan yi nga yàgg a joytu jot na nag ñu dimbali leen ci ndax bakkan yooyee di rot foofee jéggi na dayoo beneen ponk mbokk yi muy mbas meek tolluwaay mi juróom-benn fukk ak euh, ñeent euh, ñoom nag euh, lañu am tey jii directeur de cabinet bu ministère lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram docteur Aloyse Waly Diouf te ji suba la ko xamle yokk ca itam ne ñeenti doomu aadama ñàkkati nañu seen bakkan loolu nag yóbbu li limbu ñi faatu bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi ci juróom-benn fukk ak ñeent kon juróom-benn fukk doomu aadama ak ñeent ñoom ñoo ñàkk seen bakkan bi mbas mi duggee ba tey tey ci altine ji ñoom ñoo amee euh, li nga xam ne moom mooy mbas mi ca yooyu jamono itam juróom-ñett fukk wér nañu euh, ba fas yéene dellu seeni njaboot ñaar fukk ak euh, ñaar nekk ci guddi gubët setagul beneen ponk mbokk yi muy kuréel gi lëkkale liggéeykatum wàll yoon di rafetlu moo door de grève bi maanaam seen naataango nanu sàmmonte ak nanu bëggee woon grève boo lee toog seeni kër banku seeni yoxo maître Aya Boun Malick Diop la mu ca teg rek mooy ministre bi ñu dénk wàllum Union euh, mu gëstu leen ndax itam nee ñu xeex bi duñ ci dellu gannaaw ba noppi itam nee ñu euh, dafa am ñu nekk ca ministère bi ñu denk wàllum yoon ne ca suuf di ruube waaye ñoom euh, terewul seen doxum ñaxtu bi aljuma ci kattanu yàlla daanu wàcc ci mbedd mi wane seen métit daañu dem ca tugal xam ngeen ne atte président Lamine Diack ma ngay wéy te ji ci altine ji daanu fa dem déglu la fa tukkee ñu ngi ci nar a ànd ak Cheikh Sidou Silla mi ni toppal atteb ki fi nekkoon ay jamono 2AF li ci yéen i kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taxee lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàccee. jéggalu ci yéex a door xibaar diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy doore ak nanu ko junjee di accident bu métti ba am ca diwaan ba ñu naan Saña ma nga ca Ndukkumaan ñaax doomu aadama euh, ñàkk nañ ci seen bakkan fukk ak juróom-benn am ci ay gaañu gaañu euh, ñu ma ne nag ñett yi ñoom ñoo xaw a sonn député maire Malem Odar euh, moom nag maire ba futtu Ali Ndaw di fàttali rek ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ngal la ñu jàppale leen ci digg diggal boobu ak bakkan ya dafa bari wàllum doodaan yi ñu yàgg joytu bu ñu sax ñoon ñu indi ci saafara élément bi bu yembee euh, dañuy dem ca maan fekki fa Umar Njaay ci dëkk bii di Sagné la accident bi amee ba am ñaar ñu ci ñàkk seen bakkan fukk ak juróom benn am ci ay gaañu gaañu yu ba ñu yóbbu leen ci hôpital régional bu Kaffrine ci service d'urgence ñoom ñëpp def na ñi ci war a def rajo yëpp def na ko kenn damu ci waaw kenn damu ci fukk ak juróom benn ñoo fi ñëw ñett ñoo xam ne ñoo ci ñoo ci sonnoon ñoo sonnoon sinon ñeneen ñëpp ça ah, ay dang ay dagg-dagg yooyu noonu lañ am ay xoos-xoosu yooyu moom dañ koy ñaw calmer métit bi accident bu amee euh, ñun fii nii man su ma ñëwee damay def commande d'urgence maanaam damay bind benn ordinance bu mag boo xam ne dama ciy bind yëpp lépp ñu si lu ñu war a soxla ay fil ay superfalgan lépp loo xam ne dañ koy war a soxla yoo xam ne hôpital bi am na ko indi garab yi faj leen ba pare suñ paree après ñu xool nu ñuy def ba fay. heureusement amul kenn kuñ si opéré. ñu ñu sax jamono ji ñu ngi am ab daan bu ñu sukkandikoo ci directeur hôpital bi mën nañoo génne tey jilee fi mu ne nii stabiliser nañ leen. prise en charge bi baax na la preuve si kanam dinañ génn. waaye fii accident bi amee ci commune bu Sagna duñ ne guléet moo tax député maire bi di sàkku ci nguur gi ñu defee leen ay doo daan. yu bëri yi ci suñu gox surtout suñu commune mu demee ni Sagna Mbadianeen Malam ñeen seyaan wax nañ lu nekk ñu naan ñu ay route nationale la ñu ñaawlu nag ne ñun si réew mi lañ bokk nekk ay élite ci réew mi bu ñu demee ci yeneen régions yi dañ fay fekk ay duudaan bu ma demee Mbour dem Dakar dañuy jaar ci ay duudaan bu ñuy dem Fouta dañu jaar ci ay duudaan lan moo tax ñun mënuñoo defal ay duudaan ñu jàpp ne loolu daal ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ay kilifa yi dañ jàpp ne daal respect bi joxuñu ko daal parce que jooy nañ ko fu ne ñu ngi ñaan président de la république nag loolu su fekkee yëgut ko mu yëg ko jàppale ñu jamono ji nag département bu Mboolem Arare ñi ngi sëngéem di xaar seen néew mu di premier adjoint au maire bi nga xam ne ñàkk na bakkanam ci saa si waaye ci jamono jooju nag département bu Koungheul ak bu Koumpentoum amuñu courant ndaxte bis bi dafa rajaxe poto lampe haute tension bi leen doon jotali courant bi Amar Ndiaye télévision Futur Média ci sama kàddu di jaale ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci accident boobu itam di ñaanal aji tawat ji yàlla na boroom bi fëgg seen bopp ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax ci leneen nee naa leen mbas mi ak tolluwaay bi li mëpp ña ña nga yokk démb ci dibeer ji ñeent yokk nañ ci juróom-benn fukk yi mu yóbbu nag lim bi ñaari fan ci wax mars la mbas mi duggoon ci Sénégal ba tey ñu ngi ci juróom-benn fukk ak ñeenti eh, doomu aadama yu ñàkk seen bakkan mi docteur Aloyse Waly Diouf nekk directeur bu cabinet bu ministère ba ñu denk wàllum wér-gu-yaram ak action sociale yoroon kàddu bés bi la mu ca teg itam moo tey ji caltine ji juróom-ñett fukk ak ñett feeñ nañu ak mbas mi juróom-ñett fukk wér euh, ba dellu ca seeni njaboot wala itam danañ dellu ca seeni njaboot ñaar fukk ak ñaar euh, xaw ci eloof danu koy euh, teew lu moom yoroon kàddu bés bi ci ministère de la santé ci junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeenti test yi ñu def juróom ñett fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañ fukk ak juróom ñeent jóge ci transmission communautaire ñu gis ci ñaar ci Parcelles Assainies ñaar ci Grand Yoff benn ci Diamniadio ñett ci fas Mbao ñaar ci Géejawaay benn ci Diamaguène Mbao benn ci Kër Mbay Fall ñaar ci Yëmbal benn ci Richard Toll ak ñeent ci tuba juróom ñett fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malaat yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ñeenti malaat ñàkk nañ seen bakken ci dimanche 14 juin 2020 ministère de la santé de l'action sociale ci sama baat mu ngi jaale seeni njaboot ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal woññi na juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti kaa yoo xam ne kaa positif lañ ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci wër juróom ñàkk ci seen bakken mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñoo xam ne suñu personnel de santé yi ñu ngi leen di traité. aywa ñu des ba tey ci mbas mi ak département bu Bambey bi am euh, kaawam bu njëkk bu mbas mi ñu ne nag ki ko fa yóbbu ndakaaru gi la jóge ma nga nekk fële ca euh, commune bu refan euh, ñi nga xam ne nag ñoom la jëflanteel jamono ji ñu àddoo ña nga leen di xool ba xam bu leen gisee itam xool yan jéego la ñuy jël ca ñoom bi la xibaar ki ko baaxee di Babacar Diouf toogal ñu ca Bambey jàpp Njaareem ñu wéyal xibaar yi ba tey wax itam ci leneen ci diwaanu Thiès kër maam El Hadj Baara Ndiégène foofee nag ab euh, centre de santé euh, moom lañu fa tabax waaye nag daanaka dara amu ko moo xam ndox wala sax euh, jumtukaay yenu soxla ba tax na itam askan wa di woote wallu ne nag jot na ñu jàppale leen jamono ji nga xam ne mbas ma ma ngay lëmbe foofee ci diwaanu Thiès moom Thiès kanu fa toogal Cheikh Anta la ànd ak say la ci caméra bi Imaam El Hadj di dëkku diine quartier bii de tabax nañu fii ab immeuble bu mag a mag mu nekk ab benn centre santé secondaire bâtiment bi yànji lool rafet waaye boo duggee ci biir amul benn jumtukaay bu jëm ci waa kër docteur. ñaan autorité yi yu dëkk Thiès ak autorité surtout yu dëkk Kër Maam El Hadj bokk Kër Maam El Hadj defal dara poste de santé bi c'est important. parce que di ko di kër gi te amul poste de santé bi njariñ pour man amul sens te fii am na ay cadre am na ñoo xam ne am nañ fi ay nomination yoo xamante ne ni c'est au plus au sommet de l'état te fii li fi manqué dafa bëri te li mu ci gën a metti li fi manqué mooy ndox vraiment ça c'est le béaba Fadel Ndiéguène moom moo jiite comité de développement sanitaire bi fii ci centre de santé bi am na matériel boo xam ne manqué na fi fii ci kaw ngeen di gis defal nañ centre ophtalmologie boo xam day seet bët yi salle bi équipé nañ ko mais matériel bi moo manqué booy seet am na saal dentiste boo xam ni table dentaire bi li ci war a dem yépp defar nañ ko ba pare mais matériel dentiste bi ñëwagul mini labo prévoir nañ ko ci kaw te mini labo boobu dafa war a ànd ak équipement ba léegi équipement boobu ñëwul. médecin chef bu centre de santé bi nag mi ngi dikk nag ci jafe-jafe yi rawatina mbas mi nga xamante ne bi mu duggee ci réew mi ba léegi de que nee na daanaka askan wi ñu bëri nag ñëwatu di fi fajoo si. ñi nga am jafe-jafe ci jumtukaay ci lépp ndax feebar bi mu duggee. tax na consultation yi ni waroon demee demeetu nii donc foofu noonu da ngay am jafe-jafe sur le plan financier et sur plan matériel. bu jëm ci wàllu xeex mbas mi bi ak askan ni ñoom ñooy yeewoo ci kër maam El Hadj Ndiégeen. Cheikh Anta Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko wéewet ay lu jëm ci wàllum xeex mbas mi ak itam réewum Maroc mu ñëw jàppale Sénégal ci xeex bi ambassadeur bu Maroc fii ci Sénégal démb nag jox na ministère bi nu dénk dénk wala boog ministre bi ñu denk wàllu wérgu yaram ay jumtukaay yu am solo waaye tamit ay garab loolu nag la ñu bëgg rek mooy fexe euh, ba gën a dooleel euh, li nga xam ne moom mooy xeexub mbas mi fii ci réew mi Abdoulaye Diouf Sarr rafetlu li ni mel ban ku koy jébbal ci aéroport international Blaise Diagne Ousseynou seenu a ngi fa woon ànd ak Ahmadou Bamba Samb ci caméra bi lii di piste aéroport international Blaise Diagne bu jas nag la kii di ambassadeur bu Maroc fii ci réewum Sénégal jébbal jëwriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram ak action sociale ndimbal li jëm ci wàllu produit sanitaire mu doon ndimbalu lii di royaume chérifien yi mu jagleel ko réewum Sénégal jëm rek ci xeex lii di mbas mi. C'est dans ce contexte que Sa Majesté le roi Mohammed VI du Maroc ci contexte bi nag la kii di majesté le roi Mohammed V jël ndogal nag jébbal lii di gouvernement bu Sénégal ndimbal li nga xam ne nii dafa jëm ci wàllu produit sanitaire waaye tamit ay garab. mu doon loo xam ne lii nag lépp dañ ko liggéey fële ci réew Maroc dëppoo lool ak lii di norme organisation mondiale de la sante lépp nag ngir accompagner waaye tamit dimbali lii di Sénégal ci mbas mi nga xam ne mii sonal na ko. lii nag day doon loo xam ne lii day gën a ñëw jàppale nag initiative yi nga xam ne nii kii di président Macky Sall jëloon na ko ngir xeex nag lu jëm ci wàllu mbas mi. dans sa lutte déterminée. mbas mi la nga xam ne ni sax daanaka na saxal na lu jëm ci suñu wàllu lii di ay économie waaye tamit war a gën a defaraat lu jëm ci wàllu lii ñuy wax suñu organisation sociale ak lii di comportement. et façonne notre système d'organisation sociale et comportementale. mu doon geste nag bu roi bu Maroc boo xam ne bii jëwriñ ñu dénk wàllu santé ak action sociale rafetlu na ko bu baax. bu ñu ñëwee fii ñi ñu gunge ci réception bi dafa wane rek que ne entre Maroc Sénégal benn dëkk la parce que tey képp koo xamante ne yaa ngi ci famille religieuse rek kii ci réew mi. ñëw nga fekke bés bu rafet bi loolu rek day wane ne de delà des relations économiques am na loo xamante ne au plan socio culturel et au plan religieux dañ ko bokk ak Maroc loolu nag président Macky Sall mu ngi koy rafetlu di wax ne lii président Mohamed Ciss def président Macky Sall mu ngi koy remercier bu baax di ko gërëm si turu peuple sénégalais yëpp parce que lii mooy wane ne Afrique dëkk yëpp benn lañ rawatina nag entre Sénégal ak Maroc gannaaw bu mu ñëwoon teew si ndaje mi la kii di secrétaire d'État bi ñu denk sénégalais yi nekk ca bitim réew di xam leen nag ñii di autorité sénégalaise yi ak marocaine yi ñu ngi def lépp nag ngir xool naka la ñuy rapatrier sénégalais yi nga xam ne nii dañu bloqué wu fële ca Maroc waaye tamit marocains yi nga xam ne nii mbas mi moom moo leen téye fii ci Sénégal Ousseynou am sant nañu la gërëm la weel mbokk yi xibaaru diggu ca gi doxantu ba diwaanu Sine foofee ca Fatick démb ci dibeer ji amee na ñaareelu euh, doomu aadama bu njàkk euh, bu am li nga xam ne mooy mbas mi buñ ko waxee nag commune bu Fatick moo soxal bile xabaar ñu ne euh, góor la goo xam ne am na fanweeri at ñett di fàttali rek ne ki ko njëkkoon am faj nañ ko ba mu wér waaye nag mbas maak na mu fa feeñee tax na kilifa yi boobilee diwaan daal di amal nag ay set setal dugg ca mbedd yaak roq ya ànd ceeg waa service di d'hygiène gën a ñoŋal cet gi ca diwaanu Sine ki fa toogal groupe Futur Média Aminata Goudiaby la ànd ci ak Abdou Karim Bey ci guddik samedi jàpp dimanche le maire bu Fatick nag doon lancé liggéey bi nga xam ni moom la ñu war a def ngir saupoudrer li nga xam ni moom moo di ville bu Fatick quantité produit bu am solo nag la waa mairie bi jënd teg ko ci service régional de l'hygiène ngir ñu def liggéey bu ni mel commune bu Fatick nag ba feebaru coronavirus duggee ci réew mi ba léegi ñi ngi soog am ñaareelu cas ci biir commune bi waa mairie bi nag gis ne dafa jot ñu gën a taxawaay bi ngir bañ rek virus bi tasaaroo ci biir région bi parce que bu ñuy xeex coronavirus ba pare yooyu bari day jafe moo tax ñuy def loolu pour wàññi coono yi ci wàllu yooyu guddi yi la ñu bëgg mu démarrer ak service d'hygiène ñu puudar dëkk bi pour wàññi yooyu lool nag dootu dakk parce que am nañ produit jënd nañ ko ba pare. waaye am nañu matériel dernière génération. boo xamante ne. ak nawet bi nga xam ne nag egsi na bu yàggul dara daañu commencé curer li nga xam ne moom moo di caniveau yi nekkee ci biir commune bu Fatick yu ci bëri ci ñoom nag état bi ñu nekk fi mu ne baaxul te loolu ay danger la ci askan bi. curage moom ONAS moo ñu ciy dimbale saa su ñi am circuit canalisation bu mel nii ONAS mooy ñëw pour dindi saleté yeeg yi ci ne naam am na ay jafe-jafe parce que bu ñu ubbee canalisation bi dañ ciy gis lu doy waar loo xamante ne nit ay nit ñoo ci def seen i foos am na ñoo xamante ne dañuy jël ay jur yu dee di ko ci def am na ñoo xam leneen ak leneen lañ ciy def loo xamante ne loolu taxul ñu def canalisation bi am na ay yàqu-yàqu yu ci am mooy am na ay toj-toj ci canalisation bi te mu ngi doon danger boo xamante bu ci nit daanoo mën na gaañu moo tax ma wax commune bi wax administration bi gestionnaire baa ngi nii nga xam moo yore marché nañu tànn entrepreneur fii lancer procédure ñi nga xamante ni ñoo ko mun a def fii ñu dajale leen xool ki ci gën ak ki ci moyen dix ans. pour que ñu defaral ñu li nga xam ne mooy canalisation. weekend bi nag autorité municipale yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Fatick profité woon nañu ci ngir séddale ak dund lu takku ci famille yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci commune bi te seen loxo jotul seen ginnaaw lu tolloog 51 millions de francs CFA la ñu jëndee ak dund jox leen ko famille yooyu nag ñu ñuy xamal ne bokkuñu ci ñi nga xam ni moom la nguur gi tànn doon leen séddale ndimbal gi nga xam ni moom lañ doon joxe fan yee ñu weesu. Aminata Goudiaby ñu sant ko bu baax gërëm ko wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ba tey euh, ci mbas mi ak xeex ba nu koy xeex foofee ca diwaanu Jolof moom la ñu gis rek mooy euh, dañoo taxawaloon ab opération tuddee ko soxna su téeméeri masque député bi euh, di Ndeye Fatou Guissé bokk ca soxna Jolof rafetlu na taxawaayu soxna yi ndax ne ñoom kot dajale nañ lu ëpp ñaar fukki junni ak ñaar ci ay masque ngir rek xeex jàngoro ji di mbas mi kàddu yi nag mi ngi ko biral ba mu doon jàppale ñenn ca ab goxam lu jëm ci jumtukaay yenu soxla ñu teewlu ko kàddu yi ki ko taataan di Mouhamadou Moustapha Ndiaye. mu taxawal plateforme boobu nag ne damaa jóg di xeex mbas mi ne jigéen ñi da ngeen daje un million de max ba mu ko waxee man en tant que Ndeye Fatou honorable député mu def ma point focal de la région de Louga ba ma ko defee tim ñu tànn de points focaux au niveau des départements ku ci nekk nekk sa biir département di ci liggéey. kon waa département Linguère desuñu ci ginnaaw. parce que bi mbas mi amee dana bu benn oto génnati parce que virus bi dañoo xool na tey bu oto yi di déplacé wu di dem di ànd ak nit ñi virus bi mën na dugg ci euh, propagé wu ci biir Sénégal ñu ne nañu tëj lépp loo xam ne transport la kon yéen transporteurs yi ñun dañ leen di remercier une fois de plus ngeen xam ko nag xam na ay citoyen ngeen xam na réew mi ñoo ko bokk la président de la république wax. le ministre de l'intérieur wax ko le ministre des transports euh, wax ko ngeen jóg ànd ceeg moom gaare seeni oto nag demu leen dikku leen boole kaag nag di xeex xeex bi mooy kane ngeen jël seen ay moyens personnel di jóg di dugg ci àll bi di kar nit ñi di kar jakartaa yi loolu lépp ngeen bañ bas mi dugg ci biir département bi bu loolu weesoo tey ñu ne dañuy ubbi transport bi nit ñi waree a ñëw bi ne dañuy ubbi transport bi yéen ngeen taxaw te yaalee barrière barrière yi lenn la nan leen takk masque nan leen fexe ba kuy dugg ci biir garage yi nanga nga raxasu ba set nan leen fexe ba kuy dugg ci biir oto yi nañu jël sa température kon li ñu war mooy indi leen ay masque jox leen ko indi leen eau de javel ak madaar indi leen thermoflash parce que tey loolu ngeen soxla bu nu jógee Jolof jaajëfal bu baax moom Mamadou Moustapha Ndiaye mi taataan kàddu yu honorable dañuy jubali ca diwaanu Tëngéej foofee itam euh, ñu def ci taxaw seetlu ñaari ponk benn bi mooy ndimbal li woon ci nguur gi jëm ci askan wi ñaareel ba itam mooy taxawaay bi nga xam ne euh, gis nañu ne dañ fa am ñoo xam ne dañ caa xaw am ak baylu ko bu nu sukkandikoo ci Alioune euh, Badara Mbengue mbas mi tolluwaay mbokk na ci itam di tax mu gën a metti mooy ñenn ci askan wi dañoo dem ba bayliku naaw ci euh, farlu gi dañu koy teewlu kàddu yu Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba ñoo ko taataan. lancer appel pour wax ne yëf yi euh, euh, egseegul ba léegi te ku ne xam na ne période mbas mi nekk na période bu difficile parce que borom kër yi ñi nga xamante ne ñoo doon indi dund ak dépense ci kër yi demuñu liggéey demuñu dikkuñu donc indi na laal lu sooxe. moo taxoon vraiment ñu profiter ci occasion bi pour wax ne loolu aussi vraiment nekk na extrême urgence pour que ñu acheminer ndimbal yooyu ci famille yi nga xamante ne sax daanaka ciblé nañu leen ba pare te boobu ba tey ñaari weer ñetti weer léegi ñi ngi xaar loolu egseegul ba léegi. léegi dem beex dikk bi mën nga ko def mën nga dugg ay transport mën nga dem beneen région euh, mën nga dem marché mën nga dem jàkk mën nga sax dem am na ñuy commencer liggéey nànk-nànk seen këru liggéeyukaay. loolu bu amee ça veut dire que da ngay exposer sa bopp ci virus bi donc appel bi ñuy def fii mooy vraiment que responsabilité individuelle kenn ku ne si ñun fii ci Tëngéej ñu ngi koy lancer. bu ñu jógee ci mbas mi ak tolluwaay bi mbokk yi ñu wax itam ci leneen foofee ca parcelle Parcelles Assainies ñu bootu ci APR ñoom la leen métti rek wala ñenn ca euh, APR ndax euh, ñu ngi leen di woowee euh, ñu bokk ci APR ba noppi itam ñu naan APR yi nekk foofu ca parcelle la ñuy ñaawlu rek mooy ñàkkum ndox mi nga xam ne dañu koy dund jamonoy xeex li di mbas mi ba noppi itam dañoo bëgg rek ñu indi ca saafara naka noonu itam ay liggéey yu bari yu ñu tàmbali ca noppul ca seen diwaan Euh, dañuy teewlu Boucar Diong mooy coordonnateur seen collectif yeey kàddoom euh, ki ko taataan di Cheikh Diop ànd ci ak Amadou baax bi ñu nekkee ci élection législative yi ministre Mansour fay mi nga xam ne moo yoroon wàllu ndox bi àndoon na ak naataangoom Amadou Ba ministre de l' et des finance ñu inauguré ñaar ñu posé pierre ñaari forage benn bi mi ngi nekk fële ci wetu yëngu leen mooy Nord Foire bi beneen bi mi ngi nekk fële ci wetu stade Amitié bi waaye ay liggéey projet bu mag la projet structurant wu état bi la projet wu 600 millions la mais seetlu nañu ne boobu ba tey dafa mel ni yëf yi dafa gën a tax a tembe dafa gën a yàqu sax di suñu ndox te ñoom waxoon nañu ne bés bu ñu defaree forage yooyu parcelle dina dem sax bay sedd yeneen communes yi ci ndox waaye malheureusement loolu dara amu ci. ba léegi dara amu ci donc moo tax ñu jànkoonteel jafe-jafe yu méttee métti pour am ndox te rawatina nag ci jamono ji ñu toll nga xam ne feebar bi mbas mi li mu njëkk a laaj mooy set. ñu des ba tey ji ndox moomu ak itam jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci gox yu bëri ci ndakaaru euh, ba tax na seen daal di nag indi ay xibaar nee ñu ci ñàkkum ndox moomu dañoo gis rek ne euh, jamono ji dañoo nekkoon ci ab liggéey bokk na ci itam liggéey boo xamante ne si euh, dafa soxaloon système bi fanweeri fan ci weeru mai bi nu génn usine bi nga xam ne nag moom moo nekk fële ci diwaanu ngi nga xam ne daan mën a liggéey lu toll ci juróom fukki junni mètre cube euh, ci wàllum ndox dañu ko taxawaloon ndax dafa am yu ñu fa doon def loolu nag biñ ca noppee itam liggéey bi euh, mu nga doon wéy waaye itam beneen euh, lu ñu nemmeeku rek moom mooy booster yi nekk fële ca Mexe ak itam ca Carmel dafa amoon loolu ca tagga témbe ba ndox mi mënu woon a jóge foofile ñëw fii ci Ndakaaru bañ ca noppee itam loolu ñu naan réservoir maanaam ndox mi fi mu nekk ci Mamel dafa demoon daanaka ba jeex ba tax na itam fu ci ci mel ne Ngor Wakaam Mermoz Batrin euh, Cité Kër gi ba ca sax benn tali ñaari tali jëppal euh, ak Derklé ak ñoom ñëpp yëg nañ euh, lu ni mel loolu nag la ñu wax rek ne ñu jamono ji ñuy àddoon ak juróom fukki camion ñu ngi leen taxawal ñuy wër nag ci gox yi nga xam ne ñàkkum ndox mi dalee laal ngir jàppale leen loolu nag xibaar la yu tukkee ci seen o ba tey njaw di desu xambin ci ndox meek tolluwaay bi ñu wax euh, ba tey euh, ci xibaaru diggu bëccëg gi ak beneen ponk buñ leen junjoon kuréel gi lëkkale euh, ñiy liggéey ci wàllum yoon rafet lu bu baax moo door boobee nañu sàmmonte ak ñoom bu ñu ko waxee dañoo amaloon grève bu ñetti fan ne ñu seen nataangoo itam banque nañ seen yoxo toog loolu la ñuy rafetlu maître Aya Boun Malick Diop la mu ca teg rek mooy ña ngay dànkaafu jëwriñ bi ñu denk wàllum yoon di ko xamal moom mooy seen jafe jafe-jafe ba noppi itam la mu ca teg mooy ñene ca ministère ba ñu denk wàllum yoon di ruube terewu leen wéyal seen liggéey ndax ah, aljuma ji dox ba nu ngànk amal ah, ci kàttan yàlla daanu ko matale ah, dañ ci ànd ak itam Alhassane Ba ak Pape Sangone Mbaye ñoo taataan kàddu yu maître Malick nag ministre la justice gaa yi dañu koo nax parce que ils ont misé si ay xaajatloo am suñu diggante waaye loolu képp koy def c'est mal connaître l'âme des travailleurs de la justice ñun ñëpp a jàkkaarloog moom pour ne ko li ngay def du fi jàllee li am nag mooy grève bi warata woon am ndax pour ñun secteur de la justice jeex nag tàqali ko nag ay grève ndaxte gouvernement bi plus particulièrement le président de la république dañoo si dafa signe ay décret yu bëri yoo xam ne dafa doon saafaraal jàngoro travailleur de la justice yi maanaam président la ko waroon def la ko waroon yëpp def na ko léegi nag mu des maître Malick Sall ñëw en tant que garde des sceaux appliqué loolu ci biir département am waaye mi ngi fi nekk ne yàcc def lu dara te yàcc googu mi ngi ñuy gaañ waaye bu ñoo xoolee ba jàng càng ki eh, eh, comprendre li xew ndekete dafa am ñu nekk biir ministère de la justice tubaab di leen wax faucon ñun ñu leen di woowe ëx lu yàq ëx lu yàq yooyu ñoo ñëw jël yóoram naan ko dugal ko ci yàqal travailleurs yi de la justice ñu am ci mbeteel ak yaakaar gu tas ndax Malick sàll avocat bu mag la ah maanaam mu amoon jëw bu rafet ñu wax ñu ko ñun tey ñu toog at at yi mu am ak qualité bi mu am avocat maanaam avocat xam day dimbali tout le temps nit mu ñëw ànd ak yàqkat yee pour yàqal ñu ñu des ba tey ci wàllub yoon ak àtteb président Lamine Diack xam ngeen ne ay bés bi nu euh, génn les ko tijji woon ba koy wéyal euh, tey ji nag lu jëm ci déclaration ku ci mel ni Pape Massata Diack itam foofee euh, xoolees na ko fa dañ ci ànd ak Cheikh Sidou Silla moom moo ñuy toppal àtteb ki fi nekkoon ay jamono njiital I2AF foofu ca Paris li ñu mën a jàpp si déclaration yu Papa Massata Diack def ci commission rogatoire mooy que defa seetal boppam ci fait de corruption yu ñu ko doon tuumal wax na ni sax moom amul problème xaalis ndax si contra banque russe VTB jot na ci gagné dix millions de dollars Papa Massata Diack wax na aussi ni joxewuñu benn xaalis pour que ay responsable I2AF bañ a wax ci affaire à tête russe yu dopéwoon nee na aussi financement campagne électorale Sénégal benn dégg bref na amul benn 2020 ci gestion dossier athlète Russie juge bi jàng aussi déclaration yu Valentin Balaknichev def lu ñu ci mën a jàpp mooy que amul benn xaalis bu ñu jagleel financement campagne électorale bu Sénégal nee na lu Lamine Diack waxoon ci enquête bi simple imagination rek la dugg nañu aussi ci dossier abus de confiance lu ñu fay tuumal Lamine Diack mooy que dafa créer ay conditions que société Massata Diack yi mën a jël xaalis yu sponsor yi joxe fédération bi Massata Diack tuumal mooy recel abi de confiance audience bi suspendre nañ ko ba 14 heures bu ñu commencé nag Lamine Diack mooy ñëw ci baar bi. Cheikh Sidou Sylla ca Paris ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy Cheikh Yérim Seck mi jàkkaarloo ak eh, jamono ji waa section de recherche bu na sukkandikoo eh, ci xibaar yi nga xam ne Libération online moo ko baaxee eh, ñoom ta moom taskatu xibaar bi nag tey jii bu fukk waxtu ak benn jotee ca la ñu ko convoqué foofee ca section de recherche bu nu sukkandikoo ba tey ci Libération loolu nag mi ngi soxal kàddu yi nga xam ne moom Cheikh Yérim yëkkati na ko mu aju nag eh, ci coowal Bati Plus moom nag eh, ci ab eh, interview bu mu doon amal ci ab télévision fii ci Sénégal ci aljuma ji la woon moom Cheikh Yérim sekk nag doon na tudd jëwriñ bi ñu denk wàllum yoon muy maître Malick Sall rek ci dossier boobu aju ci évasion fiscale mu soxol nag njabootuk Fares loolu nag ministère ba cabinet danu ko weddi ba tëdd ci suuf lu ci mën a am xibaar boobu dinañ leen ko toppal te itam lu fa ruusee dinañ leen ko baaxee. ñu wax nag euh, ci descos mi euh, sàkku rek ñu daal di taxawal liggéeyub air de Diop boo xam ne sëriñ boobu ne ñu moo ko doon amal ca cœur de ville bu euh, diwaanu Kaolack ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ànd ak euh, doomu Saalum boobu dañoo joxoñ baaraamu tuuma waa mairie bu Kaolack ñu ne nag euh, rek projet la boo xam ne dafay jàppale gune yi ñu am fu nu footballé te itam miir ba sax daanaka yëkkatiku woon na ba noppi itam gazon ba la ko tere woon na noppi bariwul jamono ji dañoo dakkal liggéey ba ña koy jàppal tànk moom sëriñ boobu demoon nañ ca bërëb foofee la ko yëkkatee sax ci teewaayu Ibrahima Diame la ak Faly Gueye ci lu ñu wax waa équipe municipale bi maanaam agent municipal yi dañoo ñëw ne gars yi nañ arrêté liggéey bi liggéey bi benn aire de jeu la benn terrain de foot la mooy li ngeen seet ni ci ginnaaw ñoom ñu daal di ñëw ne na gars yi arrêté liggéey bi bu leen demandé pour que ñoom ñu présenté wu au moins sooy ñëw di wax fenn wala nga nekk agent quelque part war nga mun a génne sa carte professionnel wala bokk nga notifier ñi nga xam ne ñooñu nga fa fekk nga ne leen kat motif bii moo tax ngeen war a arrêté liggéey bi mais doo leen ñëw rek taxaw ñu laaj leen seen tur joxe woo leen ko ci mairie bi lañ bokk xam nga loolu c'est vague ñàkk a respecté suñu doxaleenu commune la ñàkk a respecté aussi doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi nekk ci dëkk bi am yéene aussi pour defar dëkk bi bu loolu weesoo 30 minutes après. waa DSCOS daal di ñëw di leen wax ne ñoom dañoo jot instruction boo xam ne ci commune bi la jógee pour que ñu arrêter les travaux sans notification Kaolack tontu na ne ñu nag ñooñu di fëgg seen gémmiñ di yuqu dañoo war a dem jàngi li nga xam ne moom la ñu dënk ca euh, texte ya bu na sukkandikoo ci Cheikh Ndaw mu yor lu jëm ci wàllum jokko gi ca mairie ba ñu ne li tax nag des ko taxawal liggéey bi ñoom dañoo amul woon euh, sañ-sañ tabax ko maanaam autorisation de construire loolu donc tax nag ñu daal di taxawal boobu liggéey euh, Cheikh Ndaw ba tey ak Ibrahima Diame ak Faly a jàng ñàkk a jàng moo commencé nga xam kan mu arrêté chantier DSCOS direction de l'assurance du sol ñoo ñoo arrêté chantier ba arrêté bi maa ko tiim il faut ñu xam la autorisation de ak permis de construire les permis de construire kooku loi la dafay dafay tegu si ñoom képp kuy tabax da nga koy def dossier bi pour ñu xam bâtiment bi le coût estimatif danga koy wax wax latrine nu muy mel wax bâtiment bi nu ñu koy defee ndax am na norme sanitaire yi ak lépp mu mu mu jàll bu ñëwee dafay dem euh, urbanisme ñëw agent va seet ko ñu dem su dee su matee lay doog a ñëw mais doog ko signé mais dama ne la si cas d' bi ñoom mosu ñoo def sax demande défier naa leen ñoom xam nga waxuma gune yu ndaw yi wax parce que dañ na a dañ leen a yónni ki leen yónni moom su wóola boobu na wane boppam yegsi nañ ci ponk bu mujj bi li ci yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen jëf cekkeen di ca kër Cheikh Yérim Seck yéenekaay yu bari ñu xëye ndool fa la ñu xëye L'Observateur Libération Tribune ak Le Quotidien ñoom ñëpp xëy nañu xamal ne journaliste Sen Afrique ba woon di Cheikh Yérim Seck ma nga ñu woolu ca gendarmerie L'Observateur nañu waaye bi ñu ko laajee lu xew ba tax gendarme yi convoqué ko li mu leen tontu moo di laaj ngeen mbott ab geenam L'Observateur laaj loolee teg ci di ñu xamal li tax ñu convoqué ko moom Cheikh Yérim Seck ca gendarmerie ubbil yéenekaay bi coowal Bati Plus wax moo ko jural ci émission bu ñu naan invité de MNF di amee ca télévision 7TV fa waxee la tax ñu woolu ko ndax dane sandarma yu section recherche yi ba ñu demee di perquisitionné kër famille Fares 650 millions fa fekk wax nañu lu taxawul la fa fekk ëpp na ko ñeenti milliards la fa fekk l'observateur nañu procureur de la république Serigne Bassirou Gueye ba mu yëgee loolee ca la sant waa section bu gendarmerie fédérale bu ñu ubbi ci enquête ngir xam loolee Cheikh coronavirus bi am na ministre de la république yu ca tax ripp bay mandat d'arrêt mi ngi gàlle ci seenu ndodd mu wax ne ci dossier boobeet loxob ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall génn ci mu di loolu la tribune nee nañu cabinet bu ministre Malick Sall nee nañu du dëgg te tuuma Yirim Seck yooyee duñu ko bàyyi mu jàll ñu jàll ci libération gis fay li tax ñu convoqué Cheikh Yirim Seck ca brigade de recherche bu gendarmerie fédérale ba xibaar boobeet ku xool xët jàmm waxi année balance di atum njàng mun ñuy lay bañ a dégg moo waral mi ngi def lu mu mën ngir waajal ubbi teg gi ne jàpp na ne ginnaaw ubbi nañoo jumaa yeeg jàkka yeeg église yi ubbi hôtel yeeg restaurant yi yombal dem bég dikk bi mu di ci jaww ji di ci jéeri ji kon jot na sëkk ñu xool nu ñu mën a ubbee l'école yi ba élèves yi mën a jàngi ndax ëllëgu gone yi ci la wékkee li des kay moo di jël matuwaay yi war ba élèves yi bu ñuy jàngi ba jàngalekat yi di jàngale ji bañ am benn jafe-jafe libération nañu élèves yi war a def examen léegi tey ñu ubbi leen seeni classe ndax ministre éducation nationale di Mamadou Talla mook ñoo nga cay liggéey bu baax a baax te yàggatul li yàgg ci njàng mi yàgg ci jàngalekat yi réew mi bay bëgg a sëxin journal l'info nee nañu mooy diggante enseignants yi ak xaalis ñu bari li ñu leen bàkke moo di enseignants yi dañoo bëggub dërëm yéenekaay bi nañu waaye bi ñu ci waxtaanee ki jàngalekat yu nekk ci enseignement supérieur bi moyen secondaire ak élémentaire ñoom ñëpp a fa xas wax joojee yéenekaay bi tegal ñu ci ne liggéeykat yi ci fonction publique bi jàngalekat yi ñoo ci ëpp ndax mat nañu junni ak ñaar fukki jàngalekat li ñu dikkee état bi mu di seen masse toll na ci 520 milliards at mu nekk coowal suuf li nekk dëkk bi journal Sud du Quotidien xëy na ca gës bu yaatu mu di band bande de filao beeg ni ñu koy saax-saaxee ak suufas réew mi si ñenn dëkkee dagg di dëkk littoral bi caxat-caxatee nañu ko filao yi agressé nañ ko ci yëmbal noor bari na fay lotissement yoo xam ne ña nga koy jaabaa jonge ndax nee nañu tegewul ci yoon ci cité apix yi am na fay site de recasement yoo xam ne gaañi dagg nañu ko def koy pàkk jaay ko malika moom nañu ko def sidd nañu budul Mouhamed Ndiaye ñu sant ko gërëm ko jéggalu nag bu baax a baax mbokk yi eh, ak eh, li ci yenn kaay jafe-jafe bi ñu am ci wàllum dégg-dégg bi télévision Futur Media di leen jaajëfal ci seen safo seen kóolute ak seen cofeel dig leen dajee ngoon ci kàttan yàlla ci yeneen jataayu xibaar di leen ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkk ci yéen.